ñu ngi euh, rafetlu délégation bi parce que ci tiis lañ nek, ci nakar lañ nek, mais comme li am ba am na ba paré parce que ñu sentir aussi gouvernement sénégalais peuple sénégalais ñëpp ñu ngi suñu ginnaaw parce que lépp ñëpp tul nañ ko wa dembu bi affaire bi amé ministre bi wonama Dial indi Ndialam le maire Racine Talla ñëw na fi ak délégation indi Ndial tay aussi ngeen def délégation ñëw au nom du président de la république donc lool dañ koy gëna rafetlu di xamné vraiment am nañ tiis am nañ naqar waane nit yi seetaanuñu sénégalais yépp le tout le peuple sénégalais est derrière nous donc pour baña a rek ñu koy rafetlu di leen gërëm di leen sant